Macky Alpha Condé moo la gënoon a téeméeri junni yoon parce que yow demoo armée Alpha Condé moo la ëpp technique junni yoon parce que demoo armée Macky xoolal yow xamoo sax ni ñuy téye turelu ciment te dinaa la ko yóbbul ci vaar bi turelu ciment rek xamoo nuñ koy téye Alpha Condé moo la ëpp xam-xam moo mag moo la suk ci lépp xoolal moo la woowee bërki président bu tekkiwul dara Alpha Condé pare na ci Macky <laughs> mooy yow préparel fii président bu fi waxati troisième mandat xoolal gasal nga sa bopp ñetti bàmmeel man maa la ko garantil Alpha Condé nag duñ ko laal duñ ko def dara dañ koy meubler kaaf lañ koy wutal meublé ko bu ko defee mu mën a jox message yeneen président Sénégal yi parce que boo ko rayee histoire day ñëw bindal ko eh Alpha Condé def na fi lii wala lële mais boo ko bàyyee moom muy raconter lu bon lim fi def mu koy raconteel boppam histoire du ko bindal dara parce que président dooméram yi fi jaar yëpp après histoire day ñëw naan def nañ fi lii def nañ fi lii te booba ñoom ñoo ñu rey ñoom ñoo collaboré ak français ñoom ñoo ñu indil problème ñoom ñoo tax askan bi kenn amatul jàmm ñoom ñoo tax diwlin di yokk ñoom ñoo tax essence di yokk ñoom ñooy dawal oto yu baax yi ñooy seddoo suñu terrain yi lépp ñoom la lépp ñoom ñu defe ne nag xam nga ñoom dañuy continuer di nekk ci jàmm non on est ensemble ici en Afrique fi mu toll nii Afrique moo ànd pas Sénégal Afrique moo ànd booloo Afrique moo ànd taxaw pour xeex